alors daanaka liste bi mënuñ amuñ ci mbetteel yu bëri puisque euh, on a toujours yaakaaroon nañ ni Aliou Cissé day continuer ak ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo jegewoon coupe du monde ñëw commencé ak moom qualification yi tey daanaka ossature boobu mu ngi fi. Euh, dafa amoon ñaari surprise euh, pas parce que bay dama leen fàtte woon pratiquement. Moi, Henri Saivet ak Saliou Ciss pas parce que bon mais <laughs> parce que euh, euh, quand même Henri Saivet depuis euh, la CAN 2017 hein, le gëj kii bi depuis la coupe du monde donc dama leen xaw a fàtte. maintenant nag am na ñaar ak ñetti surprise yoo xam ne xaaruñ ko woon man personnellement xaaruma woon Santingom xaaruma woon Sada Thioub Euh, peut-être que tey da leen si boole pour gën leen xoolaat parce que Sada bu ñu waxee Sada Thioub euh, amagul jotu xool ko lu bëri ci équipe nationale. Santy Ngom xamoon nanu ko mu bon nekkagul euh, ci ci équipe bu mag waneegul en tout cas lu bari mais ba tey Aliou Cissé mi taxoon ñu découvrir ko bu ko indiwaatee c'est parce que am na yaakaar ni war na mën a def dara. ak xëy na Henri Saivet mais Henri Saivet sax dinañu xalaat ni que bu ko indee rek c'est normal parce que Aliou yàgg naa wax ni dese na ko joueur bo xamantene bi mom moy euh exécuter coup franc yeeg bal bal arrêté yeeg yu demee non bo analyser bu wax nga xam Aliou a raison parce que ñun ñep dañ doon décrier né dañ am ay coup franc ak ay corner duñ si exploité dara bo xolé ba Henri save bok na ci joueur yo xam mën nañu dóoral coup franc parce que loolu moo ñu gën a banqué match bi bu démé ba fermé ba tëju. Euh, da ngay soxla euh, da ngay soxla exploité sa coup de pied arrêté yi loolu moo tax Henri mu woko ko ensuite Saliou Ciss wax nako bon c'est euh, amuñu arrière gauche oui c'est le moins mauvais <laughs> c'est ça bon donc euh, effectivement et puis dafa def saison bu régulière dafa jouer Valenciennes Ligue 2 française amuloon un autre choix loolu moo tax mu woo ko. kon si ensemble bi bu ñu fekkee Mbaye Diagne ci liste bi c'est c'est tout à fait normal koo xam ne dugal na 30 buts ca Turquie euh, fekk fi ay a Mbaye Mbaye Niang ak ñeneen ak ñeneen donc vraiment liste bi dañuy am yaakaar dañuy rafet njort entraîneur bi xam lu tax mu tànn peut-être xamna na euh, li soxla ta lim mu soxla si ñooñu la ko yaakaare donc euh, dañuy rafetlu le si bi mais jàng avec 30 buts ça serait difficile parce que wo na quand même yàgg na fi ñoo ah depuis septembre mu koy wo donc 30 buts ñu bu bañ ko wo ça sera une surprise mais man maa doon xaar abib Diallo quand même 25 euh, buts la dugal Ligue 2 française quand même Ligue 2 française wax waxuma ne championnat ki baaxul championnat bi baaxul c'est vrai ku dugal 30 buts benn saison mënoo ko baña wo mënoo ko bañ a woo mais c' vrai que si benn liste 25 la nekk est ce que dina bokk si 23 bi kenn xamul mais ça euh, je pense ah, euh, kii euh, Habib Diallo puisque woo na ko une fois naroon na ko mën a jox chance yi mu xoolaat ko quoi. absence su Kara bettuma parce que ci Kara comme ni ñu koy waxee avant coupe du monde gëjoon na ñëw mu ñëw surprise ci coupe du monde bi ñu jógee si coupe du monde bi ba tey xëy na tey ñëwaat na ci formam ak ba mu ñibbee àndaale ba léegi mais euh, équipe comme day day day dox bi mu absenté am na ñeneen ñu fi ñëw te ñoo bu ñu ba légui wax dëgg yàlla entraîneur mi ci am satisfaction. franchement de surprise dañu ma gisoon sa communication yu bëri bu Kara euh, di def dama dama amoon naa certitude que bokkul si liste loolu moo tax muy def communication ensuite boo xoolee saison bi c'est un peu charcuté naan bi affaire yooyu bon euh, et puis ñu ko remplacer surtout ñu ko remplacer dañu doxal. dañ doxal ñoom suñ doxalu lan sax ñu woo ko mais ñoom dañ doxal même remplaçant yi Pape Abou Cissé par exemple ça a été une belle surprise surprise bu rafet la pour Sénégal donc pour man woy euh, du surprise le fait que Karamba ñëwul comme ni ko entraîneur bi waxee xool na ko xool na ko ba dernier moment xëy na euh, mu bëgg a def loyauté rek des ak ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo ñoom ñoo yeggali liggéey beeg loolu mais yaakaar naa ni Kara aussi amoon na place am ci équipe bi mais bon euh, tay entraîneur bi aussi amna choix am yu ñu war respecté. mission deuxième gagne, de choisir wala critiquer choix entraîneur ce jour ñun une mission moy li ñu xamé mobiliser dans toutes les équipes du Sénégal barki dem deuxième gagne organisée avec ak ministère des sports lancement de la plateforme de mobilisation au Sénégal ñu avons tay am mbettelu La fédération ñew bind ci affiche s'unir pour gagner.

ministre amna lu ñu junj né dina am lu mu jël tek suñu loxo ñu xol lanen mais ñu suñu xel dafa dal ndax dañu am état bo xamni chaque fois bu deuxième gaynde juggé wax ak mom lu ñu soxla président Macky Sall bi nga xamni moy premier deuxième gaynde duggal ci loxam dañ fa demat toog ak mom waxtaan ak moom nekk day ñun li lañu am li lañ bëgg def mu xol lu ñu mëna jappalé inshallah ñu mëna mobiliser à bon dara leen way Ali we Ali Ali Senegal. àsìkò balama oh. o àsìkò balama sunbe sunbe. Senegal balama o oh. Senegal balama. ee eh, sunbe. Senegal balama o. Oh. e eh, papa duwa le si. Senegal balama. ee eh, sunbe. Senegal balama o Senegal balama. jaajëf rek.